ay murit yoo xam ne sëñ Touba rek yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def. wallaahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal xalifa général des mourides mu yàgg fi te wér di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad Mbacké mu yàgg fi te wér ak njabootu sëriñ Abdoul Ahad gépp ñu ngi sant ñëpp ah. taalibi yëpp dañoo ñëwoon tey rek fii ci exposition bi ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ak euh, Alaaji at adjoint maire ak euh, comité bi nga xam ne ñooy commission culture bi te euh, Serigne Abdoul Ahad Abdoul Ahad Abdoul Ahad yi jiite ko muy li tubaab di wax ay Abdoul Ahad yu bare bari lañ ay ex Abdoul Ahad yoo xam ne ñoom lañ tànnoon jox leen liggéey bi ak ñu ànd ak seen collaborateurs yi ak seen mbokki taalibe yi ñu def programme bi programme bi nag ni ñu ko defee ren dafa am solo parce que dañoo leen ko jox bi bi mu tàmbalee ñu bëggoon rek ci bis bu tedd bi bisëp ku tedd kii bisab nit ku màgg ku am xam-xam gi nga xam ne géej la woon maanaam dafa jot ñu wan ko gone yi nga xam ne xamaguñu àdduna ak mag ñi nga xam ne fàttali ko mag ñi nga xam ne fekke woon nañ ko ak wan ko ñi nga xam ne seen àdduna ñor na leen te toll nañ ci jàng ko loolu moo tax mooy firndeel exposition bi léegi nag gis ngeen ko ni ngi ñu kóor ku tàmbalee fi Serigne Abdou tàmbalee cib jamonoom maanaam ba fii ñu te mu ñëw exposition bi ni mu demee ak ay waxam ay discours am ci aaya alquran yi waaye ay ay discours ci xelam jamono rek nit koo xam ne yàlla may na la xel moo xam ne bu sant toon Mbàkke war naa mën a góor ne Afrique waxuma laa wala adduna waxuma laa am réew la yaakaar naa ne feeñ na ci jataay bi ba ñu toj gis ngeen lim ko tëje juróom benn thème yi nga xam ne moom la ko tëje yaakaar naa ne yooyu dugg duggutoon école demoo daara gisoo mag te jàngat ko képp war nga cee mën a defal sa àdduna kon yaakaar naa ne fii bu fekkee ne xale yi nga xam ne dañoo toll ci sàkku xam ak xale yi nga xam ne dañoo toll ci jàngu àdduna yaakaar naa ne bibliothèque ngi nii boo xam ne suñu ko utiliser yaa ragal naa ne suñu borom dana mën a dimbale ci lu bare bare bari ndax àdduna kat amul lu ci gën xam boo xamee da xam dana la musal boo xamee xam dana la may boo xamee xam dana la aar kon nag xam lu baax a baax la te xam moom li koy tax a am li koy tax a li la koy may mooy sàkku kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bi waaye ci jëf ju am maanaa ji ci ni ngeen ko programme parce que mérite boo koy def li ma doon waxoon rek day ñëw da nga koy jox koo ko xam boo joxee ko xam bu defee lu bu defee dana def luñ xam bu defee luñ xam ku ñëw te bëgg a xam danga xam kon nag loolu moo taxoon sëriñ bi yabal ñu ñu ma ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma ak alaaj Ndiaye programme ak lenn ci njaboot gi ñëw fekk leen fi ñu ubbi eh, exposition bi di leen ci sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla nañ ko teewee na ngeen déwén di leen daana ngeen ñaanal sëriñ bi yàlla guddalu fan te wéral cëram di sant taalibe ak mbooleem comité de organisation bi seq programme bi ñu ngi rafet su seen doxin di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. boo ci génnee nag da ngay yéemu ci li nga xam ne moom la seqoon ak alxuraan ndax léppam di ay jëfam ak ay waxam daa nekkoon loo xam ne day day tekki ay yi nga xamante ne bii mu wàcc ci alxuraan mooy ki nga xam ne moo nekkoon jëmm ji gën a màndargaal dëggi-dëggi jullit dëggi-dëggi taalibe nekkoon nga xam ne léppam dafa dëppoon ak alxuraan ak sunna loolu rek mooy ni ci jot bi ndax dañoo dañoo dañoo bett waaye loolu rek mooy foog naa ne li sëñ bi laa doon wax léegi fii boo fi boo fi ñëwee eh, foog naa wax ko sax ci sa biir eh, leeral sëñ bi laa mus ta wax waxi boppam day mel na rek kuy firi alxuraan waxam jëpp loolu la day mel na moom buy wax alxuraan lay firi loolu moo tax thème bi ngeen jël nii am am solo waaye yemul ci loolu njàngaleem wolof mi foog naa ne <laughs> moo gën a dëgërati mm-hmm. foog naa juróom benn xam nga juróom ñett yi nga wax fii mm-hmm. moo gën a nga xam ne kon man na téeméer te dajetaan mangoo nga xam ne kon simple laxat mm-hmm. ab université la boo xam ne ba dënga ni jamono dabu te sëñ laat mi mooy liggéey université ba fa mu nekk waaye la fa defoon en 1980 ñeent fukki at ak ñaar gëmm ne la ñu fay def ne ëpp na ko doole war en tout cas ci gis-gis. Mm-hmm. ëpp ko ndax euh, sos gi foog naa yëmut ak euh, yëmut ak dara. loolu day wane ne kon moom ba mu ca nekkee ñu toogaan nañ fanweeri at ak juróom-ñaar soog a àgg foofa di si jéem a tàmbalee ndam la bi. Mm-hmm. kon nag li nga xam ne mooy li am solo mooy li li ngeen fi wane nii képp ku di taalibe war cee roy. Mm-hmm. képp ku di war na fee ñëw ba xool ko ba gis ko. ndax njariñu kese la alhamdulilah bi nga xamee ne taskati xibaar yi ñu ngi fi kenn ku nekk fa nga nekk mën na la faa fekk waaye vision boobu mu amoon tam fañ teg ci université bi maa ngi koy wax léegi ci bëccëg tey jii lépp loo gis muy dox ci dëkk bi man nga ne seen daat moo ko jëmbatoo te li ëpp doole te heureusement aussi yow jaaraat nga ci mooy ni ma raxase dëkk bi ba ñun ñi fi nekk ñëpp muy génération bii kenn xamu ci lu bon loolu foog naa doy na sant yàlla ngir imaginer bu defutoon loolu ak fi réseaux sociaux yi toll ak noonu yoon wi ni ñu bare ci geneen wet bi kon tey ñun lan la ñuy dund ak gàcc kon seen daal foog naa ni kenn mën ko fay yéen itam ñu dañ leen sant di leen gërëm leen sëñ sii di wóoloo ba jox leen ñi ñu kul li nga xam ne seen wajur seqoon na ko ak seen laaj te dëgg-dëgg mot li ngeen ndax taxawaay bi ngeen taxaw fii foog naa ne kenn ci ñun bu fi nekkoon mënta def borom bi suñu laan miitam nañ ko sant bu gërëm ndax euh, man fukki fan ngi maa ngi ci kër gi waaye li fi def lu ne ak jàppandalam loxo mi ngi ci di sant itam sëñ si mi nga xam nag moo yaatal euh, xàll yoon bi may ñu ba kenn ku nekk mën a dañu si yéene ndax ñun ñëpp mën nañu am yéene waaye bu tëjul bunt yi kenn ko da nga toog sa kër rek ñaanu sëñ laa kon dañuy sant gërëm